Famara Sané euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa nuyu bépp euh, euh, auditeur bu Rewmi FM. voilà Famara laaj bu njëkk ma lay laaj ci meeting Ousmane Sonko bi mu amal ci week bi fële ca kër Massar yow naka ngay décortiquer meeting boobule ak mbooloo mi nga xam ni teewoon nañ fa. oui meeting bi moo wone na doole parti usman Sonko. meeting bi woone na position Ousmane Sonko parce que ki euh, durant le meeting wax na ay position ay ay déclaration yoo xam ne euh, woone na moom euh, mu ngi préparé pour pour faire face à Macky et parce que pour moom il fallait que mu dem ci meeting bi parce que meeting bi dafa eh, dafa dañ ko organiser ci contexte boo xam ne euh, contexte marqué par euh, une instabilité politique euh, au niveau national gis nañu politique actuellement coow bi bëri na troisième mandat mais également affaire Sweet Beauté donc il fallait que moom mu organiser meeting bi pour wone population yi pour wone pouvoir bi yéen a ngi may topp mais am naa doole te soo leen ma toppee euh, kii kii loo xam ne du dëgg euh, mën naa créer problème yi. Sénégal ci ci loolu sax nga gis ni def déclaration. daan moom def na testament euh, soit Macky Sall da koy rey wala ñoom ñu faat Macky mu nekk kàddu yu doy waar yoo xam ne yëkkatee nañ ko ci meeting boobu la. waaw kàddu yooyu kàddu kàddu yu doy waar parce que gis nañu moom je pense que euh, dafa sori ci déclaration euh, boo jëlee euh, document Sweet Beauté ba fu mu commencé ak tey. Euh, euh, moom da daan na eh, daan na déplorer au départ wax na dina dem ci euh, ci procès bi mais ensuite euh, euh, vers la fin mu commencé di relativiser parce que gis na ne am na ñoo xam ne dañ leen di confier dossier yooyu dossier procès boobu mu amul wóolu leen loolu moo tax mu commencé di def ay yeneen déclaration donc une manière comme ñi dem justice bu ñu demee bu ñu bu ñu la convoqué ci ki ci ci ci ci ci justice bi ou bien bu ñu la bu ñu la con police bu ñu la condamné convoqué da ngay wa waaye ah, ah, feebaruma dara jotuma ainsi de suite da ngay jël disposition pour que suba bu dara jote bu dara dara dara bu la jotee nga xam ñu wax ne ay police la ay justice ci tribunal bi ci ci ci prison bi lañ ko lañ ko créer situation la lañu ko lañ ko euh, créer situation boobu donc moom loolu moo tax moom moom tam day jël disposition mais disposition boobu bëggul dem bëggul dem procès parce que pourquoi buggul dem procès parce que wóolul ñoo xam ne ñoo yor dossier bi quoi loolu moo tax euh, mu def déclaration yooyu quoi te c'est ay déclaration yu dangereux parce que déjà déclaration yooyu dafa remettre en cause vraiment la justice sénégalaise Euh, mais bëggul dem procès euh, te pourtant procès boobu moo ko doon laaj boobaak léegi yàgg na parce que jàpp na ne euh, justice na def liggéeyam pro dossier Adji Sarr kenn mënu ko se tëj amul benn juge boo xam ne si àdduna bi mën nga koo tëj ci dossier bi moom mu doon laaj mbir mi leer justice na def liggéeyam tey jii justice nekk ci yoon boobu war ko woo chambre criminelle mu taxawaay taxawaay bii nga xam ni loolu mooy deew ma bu ngeen ma woowee wala bu ngeen ma jéemee jël si dëkk bi dina tàkk loolu lan moo koy expliquer waaye comme ni ma ko waxee rek parce que procès bi xam nga au départ bi moom appréciation bu mu amoon ci procès bi peut-être que du appréciation boobu moo am léegi boobu situation boobu moo am léegi parce que au départ ko yaakaar na peut-être ñeneen ñeneen yi ñoo ko war a yor ñoo war a yor dossier bi quoi mais dem na xool euh, euh, magistrat yoo xam ne ñoo yor dossier bi actuellement pour mu juger leen donc amul benn confiance ci magistrat yooyu loolu moo tax Euh, du dem du dem parce que euh, il pense que c'est un dossier euh, parce que il a am na ay situation dafa contesté yu bëri par exemple procès dafa ne PV bi dañ ko falsifié et dafa attaqué directement magistrat yoo xam ne ñoo yor dossier bi donc autant de facteurs ñu fa yoo xam ne moo expliqué sa nouvelle position parce que pour moom bu demee dañ koy condamné parce que ñi ñëpp bokk nañu ci complot bi quoi. quoi. Euh, léegi ñu gis ni Adji Sarr moom tout le temps mi ngi euh, laaj li ñuy wax procès public euh, lan la bëgg ci mbirum procès public ak procès public lan moo koy wutale ak xeetu procès yi ñu faral di gis Famara. pour problème Adji Sarr moom affaire bu doy waar la parce que. Euh, regard situation bu mu demee de affaire suite ba tey déroulement ci depuis départ ba ba léegi gis nañu boo constaté ah ça position boo defee un regard critique une une analyse di nga ne di nga à un moment donné di nga ne ñii dañu doon collaborer dañu doon collaborer à un moment donné ensuite léegi moom elle se radicalise oui buy demander un procès public on ne sait pas quel est quel est le fondement de tout cela mais gis nañu moom tam euh, lu mu bëgg mën na mën na mën na indi instabilité ci dëkk bi donc mais je pense que ça c'est le pouvoir bi moo war a analyser mu xam ne euh, damay organiser euh, procès public ou non non euh, ou bien un procès non public parce que procès bi ne war mën na nekk public ma mooy ne que kuy dem ci ci tribunal bi nga assister nga dug assister boo amee place mais procès public comme moom nu mu ko bëggee ci télévision ci rajo yi ça sera une première au Sénégal et je pense que Euh, euh, le pouvoir a les, la capacité d'analyser l'opportunité d'un tel procès. wa mais bu boobaa procès yi naka lay demee euh, Famara procès public bi maanaam télévision yeeg rajo yi dañ koy teg en direct nit ñi di ko seetaan ci internet bi wala nan la. Non, non, le, le procès, le procès, public? de toute façon, le oui. procès, il est public. Le procès, il est public. kuy dem ci tribunal boo amee place di nga. da waaw le fait quoi di nga dugg maintenant l'intervention des médias loolu mooy une nouvelle situation. ok c'est-à-dire hmm. télévision rajo yi ainsi de suite boobu nouvelle situation la boo xam ne Euh, peut-être que ça sera c'est une première fois euh, ñu dugg rajo yi mun nañu nekk derrière door doo nekk ci biir nga bind peut-être que boo nekkee ci li nga retenir nga ci ci sor nga def sa communiqué directement avec sa avec sa télévision ou bien sa organe de presse directement gars yi di di suivre comme ni ñu ko defoon maître Sey mais euh, procès à la Guinée je pense que je pense que loolu ça sera je ne pense pas que je donne l'opportunité au pouvoir de pouvoir vraiment analyser cette situation. yaakaaroon daal dina mën nekk gis nga euh, ni gi ni bi ñu amal rentrée cours et tribunaux lan nga jàpp ci euh, rentrée boobu léegi nga xam ne ñu ngi ko amaloon ci teewaayu njiitu réew Sénégal di Macky Sall. rentre cour des tribunaux ma foofu kay man maa ngi maa ngi remercier saluer toujours euh, le, le comportement de la justice sénégalaise euh, malgré euh, la la sérénité de la justice sénégalaise malgré ñu ngi leen di critiquer ñu ngi leen di attaquer parfois frontalement personnellement euh, gis nañu la justice est restée un peu sereine et vraiment ça c'est un gage de stabilité dans un pays waaw euh, Famara ma laaj la leneen ak situation réew mi fi mu toll gis nga réew mi climat social bi neexatul euh, jàpp nga ni euh, kile di Macky Sall ba léegi ñeme naa laaj troisième candidature. troisième candidature man maanaam personnellement je pense que yaakaar makisal Macky Sall euh, du présenter troisième candidature pourquoi ma wax loolu parce que moom ci ci bataille boobu la nekkoon euh, ba mu accéder au pouvoir daf ko bañoon et def na déclaration yu bëri donc au regard de la stabilité du pays loo xam ne moom sondage bi bu mu war a def mu xam ne ne actuellement majorité à part les gens de l'APR amu kenn bëggul mu dem troisième mandat même au sein de l'APR war na mun naa am ñoo xam ne bëgguñu mu dem euh, troisième euh, candidature donc je pense que euh, il va tirer les conséquences de tout cela et il ne va pas vraiment aller dans le sens où il euh, dëkk bi dina nekk dans une situation euh, de trouble donc man loolu ça c'est ma conviction maintenant même si jurisprudence jox na ko opportunité pour mu présenter mais moom moo war a xam moom moo war a xool euh, situation fu mu nekk nii pour que jàmm am Sénégal comme ni ñu ko waxee dëkk teranga la dëkk jàmm la donc du du présenter sa candidature il doit assurer la relève travailler au sein de son parti mu choisir choix ñu choisir quelqu'un mu dem et c'est c'est la démocratie libre concurrence na ñëpp dem pour vraiment euh, les sénégalais vont choisir comme moom li ñu ko choisir léegi Famara euh, ci géopolitique bi ñi nga gis ñu taxaw candidat yi parce que candidature yi euh, actuellement bari na ñi naan candidat lañ gis dégg gis nañ sax Ansoumana Dione ne candidat la gis nañ fi Ndella Madior Diouf ne candidat la gis nañ Khalifa Sall ne candidat pratiquement euh, xam naa ni candidat la nar a doon gis nañ fi déclaration bu Malick gàkku euh, ne candidat la pour deux mille vingt quatre ak ñeneen ak ñeneen euh, Ousmane Sonko moom tamit fësal na bosam ci njëlbeen ñan ñoo fi taxaw carrément ñoo xam ni gis nga ni daal benn candidat bi wala ñaari yi sûrement ñooy wuutu Macky Sall ca palais ba deux mille vingt quatre. waaw gis nga nekk njiit c'est pas facile. du c'est c'est pas n'importe qui moo moo na moo moo mun a nekk euh, leader dans un pays ou bien euh, euh, chef donc man je pense que actuellement boo xoolee ñëpp ñuy déclarer seen candidature seen profil yi kenn moo so moo moo jënd ci loo bi mooy Karim moo am une expérience au plan du travail moo am expérience au plan de la coopération internationale moo am expérience moo am carnet le plus fourni au, au plan euh, de, de, dans la gouvernance donc ci loolu je pense que moo moom bu ñu ko joxee dëkk bi il va développer le pays là le plus vite possible Maintenant, mmh. au-delà de Karim, euh, il y a d'autres. Il y a également qui a un carnet d'adresses bien fourni, qui a aussi une expérience euh, euh, bien fournie. Maintenant, à côté de cela, cela il y a jeunes loups Wolof, qui Wolof, ont... <laughs> Wow. Qui a, <laughs> waaw Karim ak. ak ah, à part Karim ak Idrissa Seck ah, waaw. waaw Idrissa Seck mu gis nañu am na am nañu lu jaune lu ñoo xam ne ñoom tam ils sont engagés moom ils peuvent faire quelque chose et ils vont su ñu jëlee mi dañuy dañuy la coopération bi mooy le Sonko mooy les les jeunes qui viennent d'arriver comme ça qui qui déclarent leur coopération particulièrement les radicaux qui se trouvent dans les dans dans dans la coalition Yewwi Askan Wi. waaw euh, dernière question xam naa ni moom wolof yi mais euh, <laughs> waaw léegi njëgu carburant ak euh, électricité bi dafa yokk euh, léegi pour yow loolu yokkute googu ci jamono bi ñu doon xaar njëg yi wàññeeku surtout dund gi et tout lan la mën a jural euh, nguuru Macky Sall est-ce que mën nañu wax ni euh, dina ko chuteloo nguuram ci chute bu yomb daal prix yi ni mu mel nii. yokkute mun musul baax pour un gu un mhm. bu nekk bu amee yokkute prix bi day indi ay jafe-jafe parce que déjà euh, euh, bu ñu yokkee prix yi euh, du ay militants ay ay c'est pas parce que ay militants du e parti au pouvoir duñu ko se ressentir ñëpp ñoo ressentir difficulté métal ci donc je pense que le pouvoir actuellement fu mu nekk <laughs> waaye ci nguur gi fu mu nekk nii comme mu évoluer dem vers dem ci élection yi donc yokkatu bi et puis prix yi daf ko daf dina ko sonal sonal bu baax dans la mesure où Euh, mën na indi ay ay ay militants yoo xam ne ñu ngi ci même ci coalition au parti au pouvoir. Mm-hmm. Euh, euh, ñu renoncer seen seen candidat ñu renoncer seen accompagnement. donc ak mm-hmm. gis nañu opposition mën na radicaliser. le reste de la de de de la population de l'électorat par mm-hmm. rapport à certaines situations dañu ne ñi mënuñu maitriser situation yi quoi. voilà Famara Sané Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci merci may fàttali politologue sa xam-xam màcc ci wàllum politique merci.